di nuyu suñu wéjur yi fi nekk bokkoon ak mom démb fasante ak moom kóllëre muy dox ba tey di rafet yal na leen yàlla sàmm defal gudd fan ak wér ak fekke ak tal di nuyu l' des élus yi fi nekk je pense que suñu kilifa suñu mag le maire ma jóg mooy le doyen pour les maires te di ko remercier parce que ñun de moñu dalal parti socialiste te batay kaddom ak jëfëm ak loxom jugul ci suñuy mbir lolu mag bu lako ko baxna kilifa bi len bolé bo len togué nga sédel ko ko mënon nga yam Grand Yoff rek nopi mais ya ngi lijeenti li xew ci sama biir commune di ci dox jàmm yal na la fay di nuyu les honorables députés suma tuddé doyen sanu jon tuduna ñep di nuyu euh, les femmes suma tuddé sama yaay ay sa ah ak madame bay ak Binta gay tudd na ñep di nuyu jeunesse à sa tête basirou sam na Anta aussi nuyu na la di am mbekté bu baax li ngeen wax amna solo naka la ndaw ñi di taxawé di sécuriser le processus électoral man day lima ma la mëna netali parce que liñu ñu fekkee ci lañu dox ba yexi ñu mais li ci ëpp solo je pense suñu leader moy viatikam moy wolu yalla c'est extrêmement important ça c'est le premier fondement qui puisse te permettre de puiser ta force pour parce que nous, les une politique casquette de t-shirt moyen nous on a battu campagne en 2022 sans casquette sans t-shirt parce que l'idée pour nous c'était de faire avec les moyens du bord mais de mettre la volonté d'abord Madame bëgg-bëgg bi pas-pas bi li ko jiitu wóolu yàlla wax naa ko sànq bu ñu paasee loolu on a réussi à construire au-delà de la camaraderie mais une équipe d'amis maanaam ñoo xamante ne mën nañu nekk réunion saagante dóorante waxante lu nekk mais bu ñu génnee kenn du xam la ñu jotee benn la ñuy doon c'est extrêmement important parce que c'est cette complicité là qui sera le moteur de toute con de toute conquête loolu ci li ñu jàngat loolu bokkoon na ci benen bi mooy amul tàyyi nous on connaissait pas véhicule voiture non dox lañ daan def du matin au soir ci wéru koor la nekk pour sensibiliser les jeunes ak identifier ñan ñoo amagul carte électeur wala ñan ñoo euh, nekkagul liñ koy waxee rek ne n'est pas inscrit sur le fichier bu ñu noppee lu gàtt lii te am solo macha allah registre am la yoroon dafa yor registre ba sonn mais c'était pour nous permettre d'avoir une base de données fiable mën xam yow ci ñan nga mëna yaakar ëlëk pour bu paré mu téléphone am mi ak di kenn par kenn un suivi manam ça nécessite beaucoup de courage et beaucoup de temps manam c'est ça la vérité la conquête du pouvoir elle est extrêmement difficile mais la gérer encore c'est beaucoup plus complexe parce que tous les jours tu es confronté à mille et une difficultés que tu ne peux résoudre que par la grâce de Dieu c'est ça la vérité il y a pas de meilleur champion que yalla dimbali mo fi

parce que données yooyu moo lay mën permettre yow la nga doon jot ci ay nit di leen solliciter fan nga toll ci suivi bi ba kenn ko ci nekk mën bind loolu moo lay permettre ngay mën def des relances donc loolu aussi laajaat na jot ak patience bu bari un travail ni Mohamed Diaw di c'est toute une fierté de l'avoir à nos côtés parce que Mohamed nous a beaucoup aidé à Yoff il faut le dire il faut le féliciter parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César il a suivi la préparation des élections à Yoff de bout en bout, de A à Z. En tout cas, Wadi Mais pour nous résumer, parce que le président doit partir, on a les outils. Nous, Waker Khalifa Sall, pour nous Mais nous devons l'unité. C'est extrêmement important. Tchir, dit tout. Cela relève du domaine de Dieu. Manga sabablu, di outil tchir te dokam. Manga sabablu pour jite, te yalla du le Donc Donc, c'est des choses à régler, à mettre de côté et nous concentrer vers la star. Il y a un seul objectif. Ce n'est pas Seydina président, ce n'est pas Barthélemy président, mais c'est Khalifa Sall président. Kon dara, dara, dara, nous mëna bolé. Parce que l'objectif, il est clair, c'est de porter cet homme-là qui n'est plus à présenter aux Sénégalais. C'est de le porter et de nous battre et il ne faut nourrir aucun complexe par rapport à qui que ce soit. C'est ça la vérité. Nit bu amé junni nit na dem ak jamm ak avons nit ñun nous amé fukki nit ñun de buñ doon dox yof dañ doon reetaan juróom ñaari doom bi pendanaari mais tey ñoo jël mairie bi donc c'est pas une question de nombre c'est une question de foi de volonté de travail de méthodologie et de présence sur le terrain bu leen xeb dëj bu leen xeb ngénte bu leen xeb takk ñun touru meew sax meew invité nañu ñu dem mais c'est ces gens-là demain qui te seront utiles pour que tu puisses faire la différence sur le plan électoral donc loolu dafa ànd ak humilité Andak, askan nit en tout cas euh, je pense que l'heure mu et le président doit se libérer à 19h et Abbas qui doit prendre la parole mais nous renouvelons toute notre disponibilité pour lu ñu xam axas néew ndax lu néew la par rapport ak lim ñu nous pare nañu pour and ci wat ak jeunesse mais Dakar j'ai dit que vous avez tout ce qu'il faut donc pour li ko aji binta nous nous nous montrons disponibles sans condition que nous ñu

tunnel bi ci kaw ci ba fa c'est ça l'intelligence et c'est ça le courage et le sacrifice donc pour man euh, loolu laa bëggoon partager de ma petite expérience ci li ñu jot am mais soyez de bons amis tey ngañ ku ma nar a séparer rek moom ma xeex ak yow Adja ku ma nar a séparer rek moom ma xeex ak yow Samba Ndaw si xuloog xeex lañ dëkk mais tous les jours on est ensemble pour vous dire que on peut être de bons camarades tout en étant de très bons amis et des frères donc looloo doon kàddu yi di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum. asalaamaaleykum euh, camarade de taxawu ak camarade UGTL yi fi ñëw a ah, bég naa trop fekkee njeexitalu seen waxtaanu tey di am mbégte nag di nuyu ñi nga xam ni fekk naa leen fi muy maire yi muy député yi muy ancien yi muy responsable jigéen ñi muy responsable góor ñi ak yeeg ndaw ñi ça fait plaisir que de voir que ci lii ñu dëgmal yéen a ci woon démb bala tay di ñëw et que li ngeen def tay c'est un moment pour rebooster li ngeen dooroon parce que je sais ce que vous faites et je sais que depuis trois mois yéen a ngi ci carte yi et que léegi yéen a ngi ci bindu yi parce que le vrai problème auquel on est confronté c'est que nous des nous carte gouvernement comme d'habitude changé ko ni léegi carte rek mooy bindu mënatul Bindou récipice c'est une manière d'exclure les primo-votants surtout que su ngeen fàttalikoo nit ñu ci seni carnante simple won mais amulone carte d'électeur donc obstacle yi bari na mais nit ki du lu waxe ni mu jëfé dong la su ngeen paré fi il reste 8 à 10 jours parce que légui mu jeex il faut que ngeen dellu ci terrain bi je sais que jógewu leen ci mais da ngeen ci ciy soxla wuñu ay wax ay jëf lañu soxla fàttali ngeen ko sank ba légui élection ak alakhira yam ku jaamuwul yalla tay di xaaral ndëf fay ëllëg da ngay nax sa bopp élection yi loo liggéeyul léegi doo fa fekk dara mais surtout li dalal sama xel et je suis heureux et fier de retrouver les jeunes toujours à l'avant-garde ñu jiitu ñu dogu ñu dëggu ñu engagé wu dans le combat commun Bas. Serigne Seydina, ma fille à qui je cherche un mari, et je le dis officiellement. alors maa ngi gërëm di leen sant parce que taxawaay bi rafet na kàddu yi jëf ji na ci tegu xam nga fi ñu tollu élection compétition la compétition nak daf lay jaral su la jaralee rek nga jëfe motax ma ngi leen di félicité bu baax félicité nag les les modérateurs ngeen may ma rek xam naa bëggul ñu di ko wax mais vous savez wax ngeen dëgg on a une très longue une très grande expérience en matière d'élection taxaw moom lu ne lañ ko mën reprocher sauf que élection xam nañ ko mën nañ ko te dañ koy jëfe parce que toujours dañuy gagner ak kàttanu yàlla mais ci xeex boobu dafa am des gens de l'ombre yoo xam ni lu liggéey bi metti metti ñoom ñoo taxaw di ko def ñooñu nga xam ni kenn xamu leen du ñu feeñ dama bëgg ñooñu rekk ñu di leen fàttaliku mais surtout di leen rendre omage gis nga ci ñiy wax fii ci taabal ji ak seen mag yi fi nekkul élection lu mu métti depuis 2016 depuis 2017 ñom ñor élection taxaw ñi ñu ngi ci table ji kenn ki mi ngi il abba un travail énorme Mohamed xamu leen ko te bu leen ko xam parce que warul feñ mais sous sen parrainage validé mom la sous sen dossier baxé mom la te luñ ko boolewul nag mu jaxasu donc Mohamed merci beaucoup ma di seede yow ak say mbokk ci say kanamu mbokk que tu es un dispositif essentiel dans ce que nous faisons na la yàlla fay parce que tey laa am occasion pour féliciter la rendre la hommage <coughs> dañuy tagg ak gërëm suñu dem si yàlla Idrissa Diallo mais Idrissa liggéey bu rafet Bimoudef. mu def liggéey bu mag bi ba mu def ba tax conseil constitutionnel ñoo ko jëkk pour la qualité de ces parrainages ci yéen ñii la wéeru donc merci à vous De di un wax challenge bi day dooraat dañuy il faut que Bipa gagne. gañe rek me rek ma féliciter Mohamed à tous les jeunes ak seeni parce que ñi ngeen gis am nañu ñeneen ñu nekk seen ginnaaw ñoo xam ni saa yi ñu ubbee PC bi ba ñu commencé liggéey kenn du egg ci c'est le moment de leur rendre hommage de les féliciter pour que ñun nous ñu xam ma gërëm ak les femmes et toutes ses camarades ay jàmbaar mais surtout ay gor Vraiment, bravo à vous toutes. Les Amazones sont à l'avant-garde ainsi que les jeunes. mais les am solo rek mooy que ni dañu Je suis di nga Dakar gi suis badar lay doon ren ñu ngi am fierté que Barthélémy Dias le combat donner le capitaine et commandant mais il faut que nous nous ci il faut que ñëpp ànd ak ñun pour que Dakar ak fenen fu nek ci Sénégal taxaw gën fa mën taxaw c'est ça le challenge affaire bi du ay wax tournée yi def c'est une chose mais dem ci terrain yi c'est une autre chose CEB yi ñu créé un, moy les comités électoraux de base nañ ko redynamiser il faut que ngeen cette Athlène pour que les trois dernières semaines qu'on soit sûr

du du du du nu mu tudd récépissé mooy bind mais carte d'identité mooy bind donc allez mobiliser les gens dans ce sens-là ma gërëm nag tous les responsables yi fi ñëw tey vraiment je suis très heureux que ngeen ñëw taxawal xale yi doore ko ci sanu suñu seex la boor bee la waroon nekk sax day boy boy la rek mais pourquoi may tooñ sanu parce que sanu dafa xam xeex sanu dafa

fàttaliku ñoo xamné ni seen place fi la ba abadan parce que ñom ñep seen jabot ñu ngi fi tok seeni mbokk ngi fi tok seen camarade ngi fi tok Idrissa Diallo ba muy xex dafa metti won Idrissa Diallo ba muy jog dafa jafe won Idrissa Diallo ba muy am ndam dafa kenn xaaru ko il a été parmi les premiers en 2017 et dans des conditions difficiles qu'on lui rende hommage aujourd'hui est un mérite may suma jabar ak samay dom yi nga xamné ñew nañu jël féliciter Thierno ak parce que nak nous devons être président pour Idrissa Diallo inshallah, comme nous devons l'être pour mon fils Pala pour l'instant de ngeen may bal rek dafa de commettre au passé c'est assez compliqué pour moi d'où balma. ma qui ma mais que vous lui rendiez hommage me fait plaisir me remplit de bonheur et de joie nañ ko ñaanal Adja Kodou Je ni ñi nekk ci conseil municipal u gël kii euh, fan Point e, nañu fexe ba li ñu daloon Dalifort bañ ñu dal Dalifort suñuy camarades ñoo yàq suñu vote ba xañ Thierno Fall mu fal bii aussi ñetti candidat am na fa parce que man du ma yërëm wax ñetti kandidaa am na fa képp kuy taxaw na nga dem fan point jàppale leen pour ñu mën juboo képp kuy camarade na nga dem ci ñoom wax ci leen pour ñu mën juboo ñetti candidat mënu fa am ñetti maire mënu fa am kenn doo ngay fal donc il faut que d'ores et déjà yéen ñi anciens yi yéen ñi leen xam yéen ñi seen xarit ngeen dem wax ak ñoom am na ñu ñu dénk liggéey bi mais xam nga gi ñu woo te luy jot jot na gannaaw dee Donc, je profite de l'hommage qui est rendu à Pala pour inciter les conseillers municipaux de la commune, pour inciter les trois camarades de Yewi qui sont candidats. Nous savons il faudra que nous fassions bop pour que l'inga xamni mom le Pala liguey fofu mu bañ nax En tout cas, nous avons espoir. Nous pensons que bala bobu Yalla dana len jubatle. May je ko féliciter nak wa Gueule Tapé,

mais surtout li ko nit c'est que c'est un militant dafa yag xex en tout cas man day wóolu la et je suis sûr que avec tous les camarades tu réussiras ta mission parce que xam nga sa bok xam nga lutax ñu jox la li ñu la jox et j'ai confiance en toi di remercier ñep di féliciter ñep ma femme day Diouf c'est ma femme c'est ma petite sœur li nga xam ne moom moo jiite jigéenu Gueule Tapée Fass Colobane sama yaay anamu Awa Niang ma fille bi may wutal jëkkër te mënaguma fexe ba am ko vraiment à tous les camarades de Gueule Tapée Fass Colobane maa ngi leen di gërëm di leen sant ci li ngeen teeru suñu manifestation bi rafet na jekk na baax na aux panélistes merci à ceux qui ont pris l'initiative bravo mais def leen ko et c'est 12 mois de travail 12 mois de formation 12 mois d'information 12 mois de conscientisation 12 mois de mobilisation pour que nous puissions avoir gain de cause Mangi ngi ñëpp je vous remercie. Nous lay fay bu baax. ñu gis sa teewaay nous ci ndaje bi nga pour mobiliser li nga xam ne ndaw ci élection présidentielle 2024. waa tey eh, dañu ñëw uy si appel bi nga xamante ndaw eh, taxaw Sénégal dañ ko oowe jëm ci waajalu élection yi eh, li tax nag suñ teewaay mooy dañu comprendre rôle bi nga xamante ni ndaw ñi war nañ ko mën a jouer si projet bi nga xamante ni am nañ ko et donc ginnaaw li nga xamante ni dégg nañ ko day wane ne rek jeunesse su taxaw Sénégal pare nañ pour gunge le président Khalifa Ababacar Sall si élection yi nga xamante ni si lañ jëm tey wàllum peut-être nekk candidat en 2024 xaw na indi polémique un peu naka nga gisee loolu. waaw euh, ñun ñu ci bëgg di commenter parce que li am ba des rek mooy que xalifa euh, sal amul benn euh, décision de justice boo xamante ne écarté na ko li ma bëgg a wax foofu mooy que ne. xalifa politiquement lañ ko tere woon mu bokk tey yaakaar naa ne politiquement ci lay bokk tey ñu ngi ci yoon bi incha allah dina bokk. ñu doon wax wàllum ba tey eh, kenn xamul fan la mujj si jàpp ne également loolu benn gàllankoor la. waaw loolu dañuy wax rek ne musul doon suñu problème le président Macky moom moo wax waxu amnistie amnistie xalifa Sall musu si wax donc dañ leen di bàyyi ak suñu problème li ñu am mooy. am nañ yàqin am nañ conviction te am na fuñ teg na Khalifa Sall dina bokk. jërëjëf merci beaucoup. merci beaucoup ñu ngi lay fay lu bari.

non taxawu Sénégal en fait ñun xamuñu coow xamuñu bruit dañuy liggéey on le fait avec intelligence et discrétion boo xoolee yoof da ngeen dañu jékki-jékki fés mais jàppal na lañ daan def en amont maanaam liggéeyu suuf la woon parce que politique nag dafa waxtu bu nekk la mu laaj lii ça nécessite un travail sérieux àndul ak folklore moo tax ñun ni ñu Khalifa Sall yare ci politique noonu lañ ci continuer di dox te yàlla defal nañu ci ndimbal à Yoff et ak dans la ñuy campagne ak pré campagne jot ñu def li ñu war a def incha non lay caaxaan la Khalifa Sall sera bel et bien candidat incha allah et le moment venu les Sénégalais sauront qu'il est le candidat idéal pour le Sénégal. amnistie bi nous ne sommes pas demandeurs d'amnistie Khalifa Sall wax na ko nee na laajul dugg kaso laajul grâce ñu génn ko laajul aussi mais il sera candidat à l'élection présidentielle. il sera candidat. Et le moment venu, vous saurez comment il sera candidat. Et c'est ça l'essentiel, Inch'Allah. Non, mais c'est une situation arbitraire. Pourquoi vouloir semer ta plateforme mais aussi sécuriser le processus électoral et le déroulement des élections. C'est extrêmement important. Merci beaucoup encore. Tahou Sénégal. On a on est devenu Tahou Sénégal. Non, il n'y a pas de face. Nous, nous allons à la conquête de suffrage de Sénégalais et la victoire c'est un fait de Dieu nous avons entièrement foi en Allah dinañ dem wax ak sénégalais yi waxtaan ak ñoom lu ñu am ñu jël donc loolu ñu ngi ci suñu logique politique parce que nous avons taxawal Yewwi dañu ne woon dañuy ànd ci local ànd ci législative parce que parce que scrutin raw gàddu la mais présidentiel scrutin à deux tours la donc ku des di nga dem am loo jël bu ñu jiitoo Pastef jàppale ñu bu Pastef jiitoo jàppale ko non bu baax élection présidentielle particularité mooy na candidature bari pour éclater les voix et porter un second tour Oui mais dialogue mom, euh, ñi dañ koy bañ non dama ne dialogue nit ñi dañ koy bañ mais dans toutes les grandes démocraties Sénégal vous muy metti en 93 88 faut mujj autour d'une table dialoguer pour que tout le monde puisse participer oui pourquoi pas donc loolu le monde a ci benn aw ma ci jafe jafé waaw. mais nee naa wax ils veulent nous faire vraiment gouverner ce pays par la terreur donc lieu de dafa judd ci. tentative wu jël ay nit éliminer ci élection présidentielle te loolu xewoon na ak euh, Karim Wade ak Khalifa Sall donc du lu bees il faut résister pour éviter vraiment que li amoon amaat merci beaucoup encore.